ñëwati nañ tey ci waañ bi ci waañ bi tasante jëwriñ yu mag ñi nga xam ne mooy suñu Papa Diop Papa Diop koo xam ko xam ci xam ko ci Pastef xam ko ci waañ xam ko ci dibi xam ko ci liggéeyal suñu Massamba Fall tey nag ñu ñëw nag jox ko dé déggal ko kàddu mu am lu mu wax ci màggal gi bisimilah suñu Papa Diop. Uh, asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu di sant yàlla. maam kër maam Cheikh Ibrahima Fall. di tënk rek ndax da ñu fekk ci jataay bu xat. ndax rafetal gu bare moo tax liggéey bi mel na lu xaw a tardé waaye nag euh, du tere ñu sànni ci ay kaddu kàddu yu seede kàddu yu cant kàddu yu ngërëm ñi jiitu ci ngërëm yi ñuy gërëm suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo mobilisé euh, ñëw fekk si sëñ bi fii di gërëm ay bokki boppam di gërëm ak njabootam yi nga xam ne ñoo jël léegi bis bi saytu ko yor ko yorin wu rafet eh, boddiwuñu kenn xoddiwuñu kenn yaatal ko seet ñi nga xam ne ñi dañ leen a fekk ak seen baay ñu jox leen ci cër xëcc seen bokk ak seen i ñi ñu bokkal génération ñu taxaw liggéey bi taxawin bu rafet eh, ngàcc ku fekke woon njëlbeen nga fekke fii xam ne xaw ma ñun taalibe yi xaw ma ndax li ñuy dox dëgg la waaye moom de li mu woote dëgg la ndax ku ñëw fii àll bu toll fii mu toll. Ah. Ah, waaye lii nga xam ne mooy dal yi daayira bu ñëw fi mu ne dafay indi ay xéewalam di togg danañ dem ba xam naa ne jëmmi jamono ah, lépp loo xam ne sëñ bi daan na ko daj ci bis bi taalibe yi daañ ko jëlal seen bopp en charge ndaxit it bis bi ñoo ko moom bis bi moom taalibe yee ko moom sëriñ bi lam doon am liggéey ne ko kër seex baay góor ba mu gërëm ko ngërëm li ku ci am dara looy lam-lamee keroog ba mu jotee leetaram ci sëñ Cheikh Fall Góor ñëw fii fekk si fi Baye Ndiol Seck mu dalal ko mu ànd ak sëñ Cheikh Fall mu sëñ Saliou Fall sëñ Saliou faat Saw moom dong la fi nekk ñëwandool léegi boo ñëwee dëkk ngàcc benn kër la woon ak daara la woon léegi ab dëkk la te ngàcc santul woon Fall Njaay la santoon kon mu wóor la ne ngërëmal sëñ Cheikh Fall làq na ko moom ci lu wér a wér a wér te it doomam ju baax ji di Serigne seex Ndigal Fall bañ ko tàmbalee màggal ak nëgëni jëfam mësta dakk tànkam mësta dog ren jii képp ci raw léegi laay ñëw jóge ngin ngi neew ñu ne ma yónnee na fi téeméeri ganaar ganaar yi dàq jàpp laa wax wax ma ganaar yi carton yii kon mi ngi dundal sunna rafetal diggante ak baayam bii ñuy ñaan nag ñoom ñi nga xam ne ñun njabootug Cheikh Ibra yàlla na nu fekkee lépp yàlla nañ taxawee lépp lépp loo xam ne lii ñi ngi koy namm ci bis bi mu jëm ci seen bopp seen martaba seen daraja ak seeni i taalibe yàlla neen ko Cheikh Ibra woon ñun nag dañoo lott ci wax ci sëriñ bi ndax dañoo far ak moom nit boo fareek moom doyoo ci seede waaye li ma bëgg a wax rek mooy sëñ Bàcc Fall meloom ak jikkoom ak taalibeem ak dogoom ku ko gis li war a fii léeb rek nee nañu kenn ku ne melokaan wi muy indi ci penc mi fa mu jóge la ko jëlee moom fa mu jóge lii fa xew moom la indi fii yàlla nay maam Fall barke maam Cheikh Fall jërë ngeen jëf. waaw euh, suñu télé bi Guinguinéo TV la tudd tey la ñuy soog a commencé suñuy activité tey jii euh, lancement bi tey la euh, dañoo bëggoon nga defal ñu ci ay ñaan joxaale ñu ci ay conseils wax ñu ci sa xalaat ah, Yen kat lima ma xam man te mu wér ma mooy yéen a ngi ci yoon ndax waxi sëñ bàcc rek laa yi tàmbalee mooy ñaan gi mooy conseil bi neewoon nañu 1987 gi ku fi rusu la fekk rusu li fi kon nag yàlla na leen gàcc li fi ne barke Cheikh Ibrahima Fall gin ngi neew TV nak, dama bëgg diir bu gàtt màggalu déwén bu fi aduna bépp xam ne ngin ngi new TV amna na it dama bëgg ci daraje Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall ni nga xamane mam maam Lamp fese na ak ni mu taxawee jon yàlla lii ngeen di def yal nañ taxawé jon. amin amin amin amin amin amiin donc c'était euh, Amadou Penda Diop alias Baye Fall euh, qui gère la cuisine de Cheikh Massamba Fall depuis bien des années euh, qui nous faisait cette présentation kon on va fermer sur ce Abdoulaye Camara. Euh, ma jox kàddu gi suñu grand mu daal di koy tëj incha allah jaajëf. loo sant waa Nguir Nguinéo TV nga xam ne ci bés bi nga xam ne moom mooy 37e édition wu màggalu Serigne Massamba Fall bi nga xam ne moom gërëm Serigne Cheikh Fall Baye góor teew nañ ci biñ ci ñëwee nag couvrir nañ événement bi fi ñu war a dem yëpp dem nañ ci ci wàllu waañ bi sang seek waxtaan ak Serigne seek waxtaan ak ndongo yi nga xam ne jógee nañ bitim réew jógee fépp ci Sénégal ñëw ànd ak Serigne Massamba Fall def liggéey bi nga xam ne moom moo ko jëlee ci ndigal ci Serigne muy Serigne Cheikh Fall Baye góor kon nag ñu sant mboolem ñi nga xam ne teew nañ ci di nga xam ne yàlla ñu saabaram defal xéewal ku yaatu def ci réew mi jàmm def ci taalibe yi ñu jàgg jëfee ndigal ci sëñ bi yàgg ko woote ñu yàgg ko wuyu leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf ngi ne ngi ngi new ak daara yàllaaw salsi baqa abi li fiika yàllaaw bismillahi fiinin ak daara yàllaaw salsi baqa abi li fiika yàllaaw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 di déglu ndigal rek te kon loo ko digal mu dem ba def lu ko parce que ñaanal ko aw fanam gudd am ñim àndal yooyu Fall yàlla nga fi yàgg téeméer màggal gi yàlla ko màggal téeméeri at am nga taalibe bu baax bu la fonk bu bëgg Baay Fall te doon Fall jërëjëf jërëjëf Fall sant nañu sant nañu bu baax soxna Ngoone dul noonu ba ko Fall si tuusi دنياك يا الله أنت لي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت لي ملاسي أرجو برحمتي ألا أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك